am nañ voilà merci beaucoup merci Khadim merci mais attendez attendez attendez attendez xam wat mbubu Amadou Kati mooy jox Ama mbubam voilà kooku bu yowee ci mbubam ajuma ji di ñëw nga sol ko voilà Modou Lo Modou Lo Cheikh Cheikh Niang le président de de lutte et des écuries Cheikh Niang Merci. Baye s'il vous plaît taxawal noonu ñëwal fii buñ Abdou Aziz Ama bu sore bi ñu tàggoon Ama delloo nañ ko enveloppe bii mooy bi ñu daggoon moo lool jàllale nañ ko ko président yaa ko fi gàmm voilà Amadou Sori monsieur Ndangu Deux président s'il vous plaît indi leen benn tableau s'il vous plaît Thioune benn tableau s'il vous plaît Maga Maga c'est Maga qui décore Ama Baldé d'école Amabadé, le président d'école Modlo. Oui, le président s'il vous plaît. Président, s'il vous plaît. Président, s'il vous plaît. xam ngeen ni jàmm rek a nekk gis nga ménage yi ñu ngi reetaan rek ndax ñu ngi delloo xaalis bi nga am baaxul ñu ngi ne ménage yi ñu nga xam ne nga def El Hadj Cheikh si mu seet ñëwoon El Hadj Cheikh bu Bambey voilà c' est le président qui décore Modou Lo qui donne Modou Lo son argent ah qui décore tableau bi tableau bi Modou Lo Abdou Aziz Gueye jox na ko xaalis ba pare. waaye président ne dafay jox son excellence El Hadj Cheikh bu Bambey mu jox Modou Lo son déconnexion gis ngeen jàmm ni mu neexee am naa sama mbokk xarit yi Sidi tey moom dinañ nettali tey lu neex tey tey sama mbokk jarbaat yi yor tey lu neex waaw lu neex moom da leen nettali leen lu neex waaye leen nas saa yi yaramam tàng mu wax loo xamante ni di sutura ko rek nëbbal ko Voilà. Merci beaucoup. Merci. Euh, Madame la Présidente Sambou, championne d'Afrique, Isabelle Sambou, qui travaille. Voilà. Côté de famille. Voilà. Côté de famille. Adieu, voilà président Manga 2 troisième vice-président chargé des luttes sans frappe moom moo décoré Ama Baldé le président du moo jox El Hadj Dia bu Bambey mu décoré jox Modou Lo tableau léegi nag ñu def photo de famille ñu def photo de famille voilà ana deux day def lu mu rëy Amadou Amadou Mbaye yéen amateur yi rek ngeen dugg jàmm rek ngeen dugg defe naa président bi ménager moom kontaan ndax ménager bu benn duggul ñu tëgg mbër am toppal ma waaw coono day am day am fekk am kii am lépp waaye nii rek la mën a liggéey. xamante nañ supporter yi boobu. xam ne dañuy ñaan yàlla yàlla suñu mën def jàmm mais dama doon wax nan laay mën a jàkkaarloo seen gars yi di ak Paris sax ñu ko doon wax si làmb comprendre parce que am na ñeneen nañ leen yoo xam ne seetlu ko làmb la nag bu làmb jotee ku nekk sa mbokk lay dem ñoom dañoo demoon seen mbokk ñu wóorloo dooleel ko man dama man dama ay mbokk samay mbokk ñu dooleel ma ñu ñëw daje après bu jeexee jeex na yàlla suñu borom def jàmm ñu ñaanal parcelle yëpp yàlla na suñu borom def mais am nga daal mel na yaa daan ci kër bi la mën a demee maanaam moom loolu rek la mën a sëg muy bëri après bëre bu jeexee leneen la comprendre parce que ah, Sénégal xamante ne ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk sant bokk supporter bokk lépp lii rek la moo woon demee kon dañ si sant yàlla baax wax bañ seen ngaa bañ seen def lépp ànd na koon la dëgg la nekk nag laa boo xam bu ma bëggoon la bu ma fonkoon la bu ma amoon yaakaar mooy yow ñàkk sama xaalis waaye yàlla suñu borom ñu ne ko demee mënu ma si dara dañuy sant yàlla bu baax a baax ñaanal mu la yàlla na ko jikko yàlla jik ñaanal yàlla na ko suñu borom defal ñu laa si xaalis presque jóg te waruñoo laal si xaalis waruñoo laal xaalisu am xaalisu mën bi bu ne tey biñ la doon yëf yi dafa mel ni at jot ñoo joxaat nit ñi waaw loolu sant yàlla la xam nga affaire sant yàlla la xëy na bu ñu ñëw prévoir ko waaye lépp lu doole ko dañuy sant yàlla baax a baax di remercier waa Sozone bu baax a baax su suñu liggéey maa ngi leen di ñaan yàlla na suñu borom dafa jàmm ñun seen njaboot lañ am nañ droit bu rëkk bi kon dañ koy nangu waaye nag bu dee loolu dañ leen sant bu a baax di leen gërëm. ñu a siin. waaw mais avant ah, a a barki alxuraan ñibbi mais ñibbi naa nag programme moo barki yaa ñibbi naa barki alxuraan pare naa ñibbi naa mais ñibbi naa nag programme moo barki yaa ñibbi naa barki alxuraan pare naa ñibbi naa